Euh, ku ne list moom da ngay wax am ñu ñu sélectionné am ñu sélectionné wul bon ñu sélectionné euh, yàlla moo ko tuddoon ñu sélectionné wul tamit yàlla moo ko tuddoon donc tey aujourd'hui euh, na ñëpp focaliser wu rek ku xam ne rek Sénégal mooy dem uti uti uti ndam donc na ñëpp taxaw ci ginnaaw équipe bi équipe bi ñi nga xamante ne ñoom lañ sélectionné tamit ñu xam ne sénégalais yi sas nañ leen parce que dañoo bàyyi ñenn ñi jël leen ñoom. donc euh, bu ñu demee foofa tamit ñu def seen kéemti lay kàttan xar seen tànk tubéy euh, góorgóorlu joxe li nga xamante ne moom moo tax ñu mérité ñëw ci sélection bi donc euh, amuñu am nañ ci yaakaar li ñu war a def rek mooy fi ñuy dem muy coupe du monde mu nekk loo xamante ne mooy maanaam compétition bu gën a mag ci àdduna bi donc yàlla dimbali ñu ba tey bi mooy sunu ñetteelu yoon ñu fay dem joueurs yi fay dem tamit war a xam ne buñ fa demee dañu war a euh, gën a góor góorlu am na yeneen yeneen stratégie bu ñu war a indi mooy respecter seeni adversaire xam ne dëkk nañuy représenté bañ ko caaxaane respecter seen adversaire et puis jël match par match parce que bu ñu jëlee match par match je pense que war nañ mën a euh, indi indi beneen humilité parce que buñ ñu ñun Sénégal rek ñun ñoo jël coupe d'Afrique rek buñ démé foofu rek dañuy jël coupe du monde buñ ko défé buñ ko waxé ñi ngi nax suñu bop donc euh, li benen compétition la. bu gën bu ëpp doole coupe d'Afrique. donc dañ def nànk-nànk suñu première finale moy suñu match bi ñu am contre euh, Hollande. Au première finale bi deuxième finale bi moy contre Qatar troisième finale bi moy contre Équateur bu ñu paree ñu xol ñu def décompte xol fu ñu toll. parce que bu ñu ñëwee rek taxaw ne woo ñii dañ leen di dóor ñii dañ leen def nii ñii def nii boom dañuy sonal suñu bopp. parce que coupe du monde kenn du ko kenn du ko aujourd'hui tey Sénégal boo gisee euh, euh, raay bu mu toll ci coupe du monde mooy quart de finaliste ba ñi nga xamante ñu fa demoon. bañ fay dem bien vrai que ñun amoon nañ confiance xamoon ni li ñu capable waaye kenn yaakaarul woon sax dinañ dinañ gagné France hmm. donc taxawaay boobu noonu mooy mooy mooy gën si ñun. ñu bañ a jël ay objectif d'entrée mhm. di naan wooyu dañuy dem final wala demi final wala léeg-léeg bu ñu def loolu nañ jël match par match bu ñu ko defee rek je que yàlla mën nañoo mën nañoo dimbale. waaw euh, blessure bi bon metti na euh, vraiment métti na Sénégal yëpp je dirais Afrique yëpp parce que fule la ñuy nit di wooye di laajte ndax booy bi mu ngi tanee wala mu ngi kii ak yooyu euh, yàlla noonu la ko bëggee léegi football nag sport collectif la mhm. sport collectif la tey aujourd'hui ce sera l'occasion euh, ñeneen joueurs gën a wane seen bopp gën a boot équipe bi comme ni ko Sadio doon defee parce que am nañ ay joueurs yoo xam ne am nañ ay ay qualités yoo xamante ni waroon nañ ko mën def parce que ñu ngi joué ci ay équipes que c'est pas les mêmes que Sadio Mané mais war nañ mën a tamit indi seen touche ci équipe bi donc blessure bi xaw ma nu mu toll xaw ma ñaata semaine la donc euh, li mën a euh, lu ma xam rek mooy damay liir ay médias damay lire journaux yooyu mais daal xam nañu daal li mu mënul lu mu fu mënul nekk mooy période disponibilité bi war na am ay joueurs yoo xamante ne ci nekk ci tanière bi yu war a mën a porter équipe bi donc tey loolu la Sénégal di xaar si ñoom donc mun na war a nekk benn euh, du monde bu neex bu ouvert donc euh, peut-être am na ay révélation tamit yoo xamante ne buñ yoo xamante Sénégal sóoru leen sax bu ñu ñëwee tamit dinañu ñu mën a def différence bi.